Tay ñu ngi jam ñaajo ñu ngi jam pour quand même continuer notre notre lutte suñu xex bi parce que le 28 passé ñu ngi sangal kam ce soir on va demander par jam ñaajo euh, Sébikotane Yen et Barnier. donc on est là aujourd'hui euh, euh, ñu fi pour pour pour achever entre deux deux deux choses la première

donc euh, notre frère Sunu collaborateur Momo Dujam, a fi une vingtaine de personnes bien avec avec matériel sophistiqué nous nous. pour faire. Nous avons nous sommes ñaari guerre la avons en guerre ñaari combat combat bi Covid 19 le coronavirus koy wooye ñaareel bi nous jóg gis nañu na pour. rey yooyu ci communes yi bu ñu defee li yooyu bëri dina disparaître ba tax na tey fii la démarré donc ci turu ñu ngi gërëm waa servi d'hygiène